ñoom ñooñee daal di nañuy waat niki lënd bi ci kanamu askan bi ñoom daal di nañ leen installé ci seen fonction yu yees ñoom ñooñee nag di membre commission électorale national autonome lan la ñu mën a wax nag ci décret bi nga xam ne moom moo leen tabb. collectif de la société civile pour les élections dal di teg seen baaraam si ñetti ponk yi ñeel yooyu le tànneef ñu jàpp ne njiitu réew mi dafa salfaañe li nga xam ne moom la yoon tëral bokk na ci ponk yooyee ñàkk sàmmonteeg waxtaan gi naroon am ak kor constitué yi laata ñuy tàbb ñooñee tànn itam ay nit yoo xam ne daanaka dañoo tëddee njaxanaay waaye itam ñàkk sàmmonteeg mandat boo xam ne mu ngi toll ci juróom benni at ñu mën koyee salaat ñetti at jot ginnaaw nag ñetti lënt lënt yooyee nga xam ne ñoom daal dinañ koy fësal koos nag dafa jàpp ne décret bi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko ngir tabb membre sénat yu yees yi lee dafay xotti worma institution ngir nag erreur bu ni mel ñu mën ko corriger te fexe ba élection yi ñu ma la ñu amal ko ci dal te ñëpp mën cee bokk membre société civile yi di sàkku ci njiitu réew mi ngir mu rocciwaat décret bi nga xam ne dugal na ko remplacer ko ak baneen boo xam ne dafa méngoo ak lu chartu réew mi daal di santaane collectif ba nag di fàttali ci yan anam moom la ñuy tàbbee membre yu Sénat yi bokk na ci tànn ay nit yoo xam ne daanaka faruñu fenn dañoo tëddee njaxanaay ñu nekk itam ñoo xam ne amuñu baneen nationalité bu dul bu Sénégal seen jub ak ci seen dëggu waaye itam ci seen ñàkk par parloo loolee nag ginnaaw ba ko ay institution dëggalee ay kuréel yu ci mel ni yiy dajale avocat yi universitaires yi ñiy xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi ñi yëngu ci wàllu communication ak yeneen i kuréel yoo xam ne am nañu solo lool ci askan wi